ak jàmm seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous de Sénégal 7 di émission bu leen accompagner seen biir euh, site internet préféré du lundi au jeudi di traité bépp thème d'actualité boo xam ne rek concerné na doxalinu réewu Sénégal wala sax un peu partout loolu moo aujourd'hui nag comme ni ñu koy defee à chaque fois duñ fi naray am ay jàngat dañ ci euh, dalal koo xam ne rek day sekk ak ñun waxtaan mu indi si ay éclairage lu am solo le Euh, madame Aïssatou Diop salaamaaleykum Aïssatou. maaleykum salaam <laughs> ñaa mais mais yokkal ma sama ñaami nag. ah ah Aïssatou ah, Diop Fall ñaa ñaa waaw ah, sama ñaami moom dama bëgg sama biir xol. d'accord <laughs> sama sama sama sama nenne bi maa ngi lay nuyu di la di la sant. Mm. du nuyu internetu Sénégal set mm. nuyu ñu mu fekk si ñëpp. fii moom euh, euh, sama kër la. Mhm. Euh, moo tax gis nga 15 heures nga ko convoqué. gis nga waaye xam nga yëfu dënnu ak weeru koor bi bala ñoo ñëw foog ñu batale. tax de kat nga doo ko ñëw. Mhm. waaw te dama xam ne fi may ñëw tamit sama kër la. Mhm. moo tax du ma du ma def yenn effort yi di nuyu ñi fi nekk ñëpp technicien yi sama doom ji jiili caat ah, sama beneen doom xale yi ñi fi nekk ñëpp di nuyu nag seen patron bi sama mag sama xarit. di nuyu waa Sénégal yëpp di baalu àq ñëpp ci koor gi. Eh, di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor nangu suñu ñaan eh, donc daal di nuyu ñëpp daal mm-hmm. waaw ay surtout comme ñu koy defee euh, saa su nekk euh, dañuy dugg rek euh, par rapport ak suñu vif du sujet. Hmm. tey nag fu ñuy dooree mooy xale yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakken foofu la si hôpital Magatte Lô hmm. bu Linguère hmm. ñeent ay tout tànk ay liir. day génn àddina si anam bu doy waa yow ban sentiment nga am balaa ñuy dugg sax si yeneen considération considération yi. waaw njàpp sentiment bu métti la. en tant que femme en tant que mère. Euh, ndax euh, su ma jëlee rek ki nga xam ne dama jàpp ne moo symboliser jëye jooju muy soxna may a Saw mm. muy fa ñàkk tout tànkam mm-hmm. di xale bu jigéen euh, maanaam moom ñoo bokk parcours mm. ah ndax wax na ni sëy na huit ans man sëy naa juróomi at mm. Euh, moom itam mu enchaîné ay fausse couche man itam ma enchaîné ay fausse mm. ay fausse ba yàlla suñu borom bi euh, suturaal ñu ba may nu ci benn bant mm-hmm. euh, kon moom sax bantam bantam boobu nekkoon prématuré mm-hmm. kon mu nekk koo xam ne dafa laaj surveillance bu mu am solo xale yëpp dañu laaj surveillance mm-hmm. xale buy doogu juddu lu tax ñu naa néonatologie kam xale bi doogu juddu wax dëgg yàlla dafa laaj euh, taxaw rawatina nag xale prématuré yi. Mhm. kon xam nga euh, jëye ji euh, wax naa ne sañu ma ne mosu fi am waaye man de wax dëgg yàlla guleet ma dégg ko ci mim réew bu toll nii. Mhm. xale yi ñu ñu ay xale yu lakk tout tànk yoo xam ne mhm. ñu ngi doog a gane si àddina. ah ñu génn àddina ci mel noonu man dama ko tuddee négligence li ma dégg nit ñi di ko wax mais man dama ko tuddee carrément man pour man euh, euh, sorewul assassinat mhm. mun nañu wax ne homicide involontaire la wala na waaye daal euh, assassinat laa ko mun tuddee sorewu ko daal ci man ndaxte wax dëgg fa yàlla gàdd boo xam ne xale yoo xam ne ci yoon waruñoo waruñoo am benn wala ñaaru nurse ay nurse la ñu war a am ay tout temps yu doog a judd lañu ñu war a am ay nurse nekk sous surveillance euh, amul benn nurse nekk fa nurse boobu xaalul relève mu naan day dem sangu ji mhm. ba pare dem tëj euh, tëj xale ya euh, loolu bu weesoo nag gis nga image yi ñu wane mhm. ci xale seen bopp ay zeng mhm. fu ñu teg xale yi xam ne loolu ci biim réew dëgg-dëgg siècle bi ñu toll ñuy def lu loola wax dëgg fa yàlla loolu lu lu doy waar ay xale xam nga génn àddina xale bi génn àddina dafa metti mm-hmm. waaye génn àddina ñu euh, lakk ba ñor xomb mm-hmm. xomb xomb kooku ah wax dëgg yàlla man de euh, ba léegi nii maa ngi suñ soo choc bu te déen bi rey ba tey dafa am lu rëy loo xam ne dafa dafa dafa dafa jóge sama man nag ma ma ma ma quand même ci ne man bëggoon naa mu nekk indignation mhm. généralisée. loolu laa bëggoon ñëw ak yow. mais mutisme bi au fait. bi xam nga ñaap. est-ce que euh, nañoo wax ne Sénégal respecté ne lu dundu doomu aadama. la dignité man li gis man li gis ñaap. Mhm. Euh, dëgg yàlla lu doy waar la ñu daal bu ñu malaaka yërmande wu euh, jàppale ah Sénégal li fi xew léegi doy na waar. Mhm. c'est-à-dire dañoo banaliser souffrance dañoo banaliser dee. ormaluñu. Euh, bakkan doomu aadama ormaal lañu ko mhm. xoolal li fi nekk ci ay jéya mhm. xoolal barki deemoo njaay ñi ngi jooy lii euh, barki deemoo njaay doyen Samba Sall génn àddina nga gis mhm. si internet ñi ci kontaan ñuy jubilé ñuy jubilé naan naan ñaw fàtte ne kii nit la woon bu doon def liggéeyam baax na baaxul du ñu ñoo ko war a juger mais dafa am ay njaboot dafa am euh, ay soxna dafa am papa am yaay am rakk am nii am ay doom Euh, ñu nekk ci internet di am benn taxawaay bi boo xam ne lu lu metti lu mu kenn mës ta gis ci àddina ñuy jooyloo pareegunu euh, euh, gis nga xale tu tout tànk yi am man foofu tout tànk yi ba ma amee dama doon xaar Sénégal gi yëpp mm-hmm. màpp mm-hmm. sans coloration d'aucune sorte bu war ñu xàmmee homme politique bi waruñu xàmmee ko politiqueul mhm. Sénégalais yëpp jug ñaaw parce que li fa li fa nekk mhm. mooy dafa problème yi mu posé dafa bari bu mhm. weesoo euh, euh, euh, plateau médical bu défectueuse bu défectueux et loolu Sénégal gi yëpp la bu weesoo personnel médical non qualifié ñoo xam parce que xam nga ne femme boobu xaarul relève directeur ba ba mu war a démissionné du tey samedi ba la waroon démissionné au-delà de du, directeur euh, bi nga xam ne démissionné na. ministre ba ministre ba est-ce que warutoon teg ndombo. tànkam mais li ministre ba ci bu nekkoon ci réew bu nekkoon ci réew yu développé yi nga xam ne xam nañu ak doomu aadama. Mhm. ak ak yelleefu doomu aadama di ko sàmm. mais samedi boobu tet yu bari dañu waroon daan ndax xam nga avantage tet yooyu ndax xam nga tet yooyu daanu du ñuy diwaat xale yi de waaye dañuy dafa laate ba pare dañuy wax ñi fi nekk plus jamais ça. Mhm. waaye fii. Euh, avant xale yi loo gis sigoñ bleu crèche bee sigoñ bleu mm-hmm. euh, xale euh, mm-hmm. sëñ beño jax ni mu génne àdduna koo xam ne dara dalu ko mm-hmm. yaayam a ko yóbbu déposé ko école mu ñu faat ko déggoo ci dara dara ba tey ba sànq France ñaan ay enquête ak ay audition yi kenn xamul déggoo ci dara crèche ba wal na ma ngay continuer dund ñu bàyyi ñu bàyyi noonu mu sedd doo dégg Macky Sall wax doo dégg kenn wax ci lii am samedi ba tey man maa ngi doon xaar ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. nit ñi ñaaw ñaawlu ko. presse bi ñëpp jóg ma xaar ma doon. xaar mais il ne s'agit pas de la politique Aïssatou. non lii du mooy li ma la wax. xam nga borom politique gis nga tey jii borom politique. Mm-hmm. mais euh, lii moo gën a foor ay Sonko Adji Sarr. voilà lii moo gën a fort. Euh, euh, ay xaw ma la ay jeunesse ak ay conseil présidentiel ay éducation parce que li doomu aadama la ay tout temps yu gànn see àddina xamuñu dara day day ay xale inoffensif innocent mm-hmm. ñu ñu ñu laissé leen comme ça à la merci de gens mm-hmm. qui n'ont aucune éthique professionnelle mm-hmm. ñoo xam ne kenn xamul naka la ñuy recruter ñu teg leen foofa samedi ba léegi déggoo benn tête bu tombé. Mhm. directeur bi bi bi démission parce que xëy na dafa xamoon nañ ko waroon dàq mu ni xaar profité dem. Mhm. waaye Macky Sall nga ko dégg moom bi mu wax déggoo ko mu wax. Euh, protection petite enfance am na direction la. Mhm. Euh, ministère de la femme euh, de la dégg nga ko déggoo ko mu wax. déggoo kenn ko wax. ministère yooyu Aïssatou Diop Fall est-ce que am na. amul benn njariñ am na njariñ. amul benn njariñ. parce que au-delà de ces enfants yi nga xam ne xale yi nekk tamit euh, si mbedd yi. di traîner aussi mais ministère mu dem ba bokk suñu décor. xam nga man waxoon naa ne président Macky Sall ba mu defee euh, son fameux discours là du du 8 mars si je ne m'abuse. Mhm. waxoon naa ko ne après man yi ñu ne lu ñu xaar président Macky Sall li ma waroon def mooy euh, cin bu naree neex bu baxee xeeñ. Mhm. te il faut battre le fer pendant qu'il est chaud loolu tubaab wax. Mhm. ci saasa la waroon moom dàq tout son gouvernement moom dàq dafa jaadu ci moom ndaxte gouvernement boo xam ne nii ba mu leen soxlaa kenn ñu ñëpp jàpp ne Macky Sall day daanu. Mhm. ñu commencé di euh, di di transhumé kon président Macky Sall mu bàyyiwaat fi ñuy en sursis bi mu leen bàyyi laa xamul fan la ko teg. Mhm. ministre mi ministre euh, mi. 99 pour cent yi ay incapable lañu ñooñu waruñu sax nekk directeur général bay nekk ministre. Mm-hmm. c'est-à-dire su Macky Sall dañoo ne dañoon jooy na si Ablaye wadd dañoo euh, euh, salfaañe. Mm-hmm. fonction euh, ministérielle mais ci Macky Sall la gën a grave. Mm-hmm. n'importe kii mooy nekk ministre n'importe kii mooy nekk DG ñoo xam ne bu ñu toogee lu ñu lay wax su duñ jël benn initiative comme ay marionnettes dañuy xaaj ñu may leen chaîne. bu ñu jógee waaw euh, euh, sous la vision xaw ma sous euh, le président Macky Sall nous a instruit selon la vision du président Macky Sall lu ñu la ni vision instru ça c'est des gens qui son absolument incapables d'agir et de réfléchir pour eux-mêmes ñoo xam ne xamuñu seen rôle. Mhm. xam nga tey jii li xew nii ci xale yi mais man doon na ma ne président Macky ci saa si mhm. mu jóg dem seet comme li ma waxee dompet ci sot la bokk. Mhm. wax ju neex sarax la. Fomprongone, le président Macky c'est un, président qui est extrêmement isolé, qui n'est pas proche de son peuple. loolu te te malheureusement pour lui amul ku nekk ci wetam koo xam ne nii mun na ko xelal luy yoon. ndax ay larbin la jël ay benn wii wii ñoo xam ne luñ bëgg dégg lañ koy wax sañ ñu ko wax leen di ndax ragal mu dàq leen. donc dañ koy bàyyi mu dem def lu ko neex. mais samedi ba président Macky Sall dafa waroon taal otoom dem seeti ji d' abord dem ci euh, euh, hôpital ba. xool jëye ja évaluer nu mel jóge fa dem seeti famille bi benn par benn mhm. dëfal leen am bokk ñoom naqar bi mhm. ba pare jël ay décision forte dàq ña fa nekk dàq ministre ba dàq ñëpp jone la kooku signal fort la mhm. te ñun loolu la ñu xaar nguur ndax nguur dafa ñoo war a dafa war a protéger askanam. Mhm. waaye ñun bu ñu nekk ci ay problème parce que président Sall dañu toog di ñu seetaan. Mhm. léegi yëf yi di continuer boo balee déggoo mu def communiqué. Mhm. Euh, déggoo euh, euh, ñoom Seydou Gueye wax katam yooyu def communiqué déggoo ko Diouf Sarr ngay dégg muy tant tant bien que mal muy calax calaxe di wax. ministre de la femme waroon kenn war ko fa jiite. mais même même première dame Marième Faye Sall. ndax jigéen la tamit yaay la euh, moom dañ ko daan dégg si yu ci yu bari waaye lii waroon na ko ci dégg waroon na taxaw dem dem defal ñooña <laughs> amu fa